bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi dawi ridwani wa tamkin yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web tv al asar touba seen mbokk mu Lamine Touré moo del siwaat seen émission al academia di leen nuyu di leen ziar di leen balu àq tey di leen bal àq di ñaan ci sun boroom subhaanahu wa mu boole nu ñun ñëpp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ci njub te saxal nu ci ci barke sëriñ Touba xadim rasul mbokk yi Al Azhar Touba ci seen émission la Academia tey nag ñu indi leen genn ñaan gu ñuy wax toqental ku ne xam na ne ñaan day lu am solo ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne addu'a u muxul ibada ñaan day mooy yuurug jaamu yàlla maanaam masalan jaamu yàlla daal bu doon nit yuur gi mooy ak ñaan ñaan mooy euh, yuur gi mooy bëgg wax rek li ëpp solo ci nit ñaan mooy sàkku protection sàkku ndimbal sàkku kaaraange ci sunu borom subhaanahu wa taala loolu mooy ñaan loolu nag ñu di ko defal gone guy dóor a juddu gone guy door a juddu mosagul dara toqental mooy dangay jël këyit walla aluwa walla lu mel ni benn verre glace walla dara loo xam ne daal mën nga ci bind nga bind faatiha te nga bindee ko loo xam ne du am benn jeexital ci liir bi lu mel ne daa daa am na ñu koy defaree ceeb saaf ceeb ba mu xëm nga mokkal ko segg ko def ko daa lu sain la loo xam ne nii du wàññi kenn dara te du nekkul lu am ay produits simi wala dara lu lor kenn nga bind faatiha ci benn ci yooyu ma la wax soit ci këyit wala ci allo wala ci benn verre wala dara lu sell daa di koy raxase ndox mu sell ndox mi nag ma ca gën mooy ndoxum barkeelu lu mel ne ndoxum zam-zam boo ko mënee am soo ko mënta am lu mel ne ñun su ndox yi ñuy barkeelu fii ci Touba lu ci mel ne maa u rahma maa aynu rahma teen bu barkeel ak lu ci mel ne ndoxum poroxaan xeeti ndox yi nga xam ne teen ba mu jógee day teen bu barkeel nga barkeeloo ndox moomu raxase ko ko boole ca dara ci tàndarma walla lem fexe ba mu njëkk ci biiru xale bi bala moo nàmp loolu mbokk yi moom lañuy tuddee toqental lu amaam solo la ndax xale bi judd na alquran moo njëkk ci biiram ku ne xam ne ne alquran mooy sàmm gi gën ci sàmm yi mooy gën ji lépp luñ luñ war a jël di ca sàkku protection ci sun ci ci yi xew ci àdduna protection ci ay maladie protection ci ay Euh, yu bon protection ci seytaane protection ci lépp luy lore alquran moo ci gën te ku ne xam na ne faatihatul kitaab boobu nga bind mooy ummul kitaab mooy ndayi alquran lépp lu nekk ci biir alquran suñ boroom concentré na ko ci biir suuratul faatiha kon mu mel ne alquran nga jël bind ko mu njëkk ci biiru xale bi loolu moom la ñuy wax toqental loolu aada la fi nun Sénégal gi bu gone juddoo balaa mos weenu ndeyam ñu defal ko toqental lu ama ama am solo la nii lañ koy defee faatixatul kitaab ngay bind ci këyit wala ci àlluwa raxase ko ndox mu sell ni ko ma u zamzam wala aynu rahma wala ma neen ndox mu barkeel def ca tuuti lem walla tuuti tàndarma mu fexe ba toqal ko ci biiru xale bi mu njëkk ci biiram toqal googu ñu koy toqal moo tax wolof di ko tudde toqental kon loolu mbokk yi mooy li nga xam ne nii moom lañ leen doon baaxe di leen dig daje ba beneen yoon di leen ñaan ngeen abone ci site bi ndax émission yi ñaan yi nga xam ne ni am nañ yéene ci di leen ko jox te mi loo xam ne nii dafa concerner vie quotidienne nit ki ngeen ci mën a jot li ngeen koy mën a amee mooy ngeen abonné massivement click here bind sa username ak sa password automatiquement et gratuitement nga jot mbooleem yoo xam ne nii incha allahu andil nañ leen ko ci sa seen boite électronique leen dig daje ba beneen yoon wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu